asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi kon ñu ngi fii ci Médina indi nañ million cinq ci daara ji bismillah am un cinq lii mille la lépp na jëm ci alquranul karim six sept huit neuf dix million lepp na jëm ci alquranul karim 1 2 3 4 5 1 million 500 mi ngi mbokk julit yi ko joxe won na len xale yépp ñaanal wax len képp ku ci defoon dërëmam lepp lo bëgg ci aduna yalla la ko yalla defal Yalla la yalla taxaw taxaw sa njabot lépp looy lijjanti yal na ko yàlla yombal mbokk julli di devis bi nag moom mi ngi toll ci huit millions trois cent soixante deux mille mi ngi nii waaw devis bi entre trou entreprise baa ngi nii ci kaw huit millions trois cent soixante deux mille moo war a defar daara ji ba mu yegg incha allahu rabbi képp ko xam ne mën nga koo jël en charge tamit mi ngi nii am na ñu ko mën yàlla na leen ko yàlla sunu borom bi tabarak wa taala yombalal ba nga xam ne wa benn waay mooy jóge fële rek daal di koy jël ak àggali ko benn yoon yàlla na ko yàlla def waaye xale yi ñaan leen loolu ñaan leen ne ki nga xam ne moom la yàlla di defal tawfiq mu jël defi bi def ko ngir jëmmi yàlla ji tax kooku yal na borom bi tabaraka wa taala taxawu ko ci àdduna bu àllaaxira yàlla taxawu ko fa kon ñu joxewaat numéro téléphone bi 77 407 96 43 407 96 43 di nga jot Ibrahima Touré képp ku ci bëgg a barkeelu rek ah numéro baa ngi noonu 407 77 407 96 43